mbokki jullit yi mbokki Sénégal ñu ngi fii ci Ramadan 2021 ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di leen ñaanal sutura tawfeex képp kuy Sénégal yàlla na la yàlla may ndam ci lépp looy yëngu di ñaanal jeunesse su Sénégal yëpp ak ñi ko dëkki ak mbokk yi ak xarit yi ak soppe yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defar seen i mbir yàlla na yàlla nangu seen jaamu yàlla def ak seen i aajo yéen ñëpp mbokki jullit yi mbokki Sénégal ñu ngi fii ci Ramadan 2021 ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yëpp jàmm di leen ñaanal sutura tawfeex képp kuy Sénégal yàlla na la yàlla may ndam ci lépp looy yëngu di ñaanal jeunesse su yëpp ak ñi ko dëkki ak mbokk ak xarit yi ak soppe yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defar seen i mbir yàlla na yàlla nangu seen jaamu yàlla def ak seen i aajo yéen